moyen bariwul mais mën na si jàpp ñaar. waaw euh, que prix euh, prix pass bi dafa dafa cher. ensuite dañuy xaw a di tardé très souvent. parce que waaw ñaari que lañ dama ne <laughs> uh-huh. xam nga li doon bon mooy amu fi. Uh-huh. mais président bi mu ñëwee yeesal na parc bi. loolu mu yeesal nag bu doon fukk la dañ def ko junni mais kenn wax ne amu fi loolu tax ñu ne dolli ñu. Uh-huh. dolli ñu. pour oto yii nga xamante ji mi ngi koy indi. mu yaatu ba yaatu Sénégal loolu tax wax ne moom la élément yooyu gis nga. oto yi si charge prix yi mën nañu ko wàññi à peu près prix yi dama ne xam nga dañuy gaaw di fàtte soo képp koo fay ko deux cent mhm. tey jii mu dafa cher avant deux 2000 doon na fay quatre cent francs tey mi ngi fay ko deux cent ñu ngi ko fay ko deux cent dafa cher ndax dana dugg junni oto ñu xotti yërëm léegi benn oto lay dugg toog fa mu war a toog di fay ko deux cent loolu loolu dama nit ñi lu yàlla mënu laa ablaada mënu ko Macky Sall mii di xëcc réew mi mënu ko beneen bi dama wax ne la gis nga damay xuloo chaque jour Macky Sall bi mu nekk ministre de l'intérieur wax na fi ne tolérance zéro ci chauffeur si bu kenn yërëm benn chauffeur parce que li ñuy def ñoo ko tey ñëpp ne dañuy gerew ma ne du ma gerew maa dem seeti ministre de l'intérieur mu wax ma raison bi ma ànd ci ak moom ma dem seeti président de la république ma nax gars yi dañuy gerew te lii lañu wax ne Macky Sall moo ko wax tolérance zéro chauffeur kenn du ko yërëm moom mun ne Macky Sall jëwlin la moom la jox ministre de l'intérieur ñu rey am alkaati ci rey gu doy waar kon il faut que mu wax li war a wax pour wane la Abdoulaye Wade kon ku bëgg Macky Sall la man ma daal di biis yu mu noonu du man maay man du man ngeen di waxal man leen tolérel ñu tolérel lenn rek moo ñu des de ci waxu Macky Sall jooju mu suñ permis conduire yu nekk tribunal waxam jooju moo indi suñu permis dem tribunal te dégg naa aussi mu wax loo am solo moom Macky Sall na bu yàlla defee man man nekk ci réew mi la moo yore dogalam dinaa yeesal na oto yu màgget yi dugg ci bi réew mi euh, oto yu bees yi jóg ay gan fexe ba Sénégal am oto yu bees seen permis de conduire ne ko tribunal daa ko génne man na d'accord naa ci ndax boo ko fa yóbboon kon bu ko fa yóbbuwoon tribunal nag bu ko génnee duñ def loolu gërëm ko sant ko ah. puisque président Dakar parce que grève boobu man donc maa taxaw du ma bokk ci grève boobu ah, nañu war sax ne dañuy grève parce que ah. tey jii pour wane ne politique dafa doy waar ànd nit ki tey bu mu neexee bu ëllëgee bu ko xas président moo ko doon défendre ci tolérance zéro boobu pourtant c'était normal pour mu wax ko. mais bari na suba boo xam ne bi tey jii Macky Sall mënul réer réer baa mu neexam xel ba suba yi wateel ko am na suba yoo duñ ko wateel am na suba yu koy wateel nag mais am na suba yoo xam ne tolérance zéro boobu duñ ko ko baal ba ilaa yu diin. waaw euh, Mamadou Ndiaye Neuf euh, bu ñu delluwaatee ci reportage bi ndax askan bi moom la ñuy liggéeyal un peu. Euh, ñu jàpp si ñaar tardé bi bari bi. ak prix bi nga xamante ne dafa cher prix transport bi. c'est vrai waaw c'est vrai prix transport bi dafa cher. te wax naa la léegi raison yi tax. Mhm. sénégalais bi mënu ko. Mhm. moo mooy carburant bu cher bi. carburant bu cher bi mais d' abord avant le carburant avant le carburant xam nga carburant bu cher bi moom la chauffeur bi jéem a répercuter sur le prix. Mm-hmm. pour mën ci génn moom it. parce que bu dul loolu du ci génn mais est ce que loolu rek mooy solution mais boo dellusee ci sénégalais lambda bi mais yorul lu tax le chômage a accentué les entreprises ferment euh, élèves yi ñu ngi taxawaalu. maanaam amul source de revenu yoo xam ne dina mën a tax nit ñi di mën a voyager à l'aise am xaalis di dem di ñëw et cetera donc loolu aussi facteur la bloquant facteur bloquant la ci processus bi mais xanaa xamuloo ne bu nu wàccee prix yi suñu baissee le prix suñ ko wàccee rek day indi benn augmentation ci gain wu chauffeurs yi gain wu transporteurs yi. ci d'accord mais euh, bu fekkee ne par exemple distance boo doon def. di ko ko trois cent cinquante compte tenu de la cherté de la vie nga xool ko xayma ko daal di ne man de léegi wàññi naa ko léegi cent soixante quinze laa koy def wala cent cinquante taux de remplissage ba nga daan def léegi daf koy ëpp léegi bu fekkoon ne yow da ngay def benn voyage wala ñetti voyage ci demi journée bi yoo xam ne boo ñëwee da ngay taxaw xaara xaara xaar clients yi ba ñu dajee donc temps de parcours bi da nga koy rattraper parce que saa yoo taxawee rek nit ñi dañuy daal di dugg parce que oto bi léegi paas bi cheratul loolu solution la ça augmente donc les gains du du kii mais am na yeneen yeneen i problème par exemple suñu jëlee le cas de Dakar Dem Dikk mais Dakar Dem Dikk suñu appliquer tarif yi xam ne moom la ñu waroon a appliquer kon daanaka nit du dugg ci Dakar Dem loolu la ñuy wax nag ne état dafa war a subventionner non pas seulement Dakar Dem Dikk mais tous les autres types de transport. tout parce que comme ni ma ko waxee tout à l'heure affaire bi yemul dakaar dafa dem ba Sébikotane dafa dem ba Guédiawaye dafa dem ba Yène et cetera à travers Dakar ak ci yeneen réew yeneen euh, villes yi donc day gën a sori mais fu muy jaar yëpp di traversé ay population ñoo fa dëkk yoo xam ne dañu soxla service su transport kon service transport bu boo ko boo ko defee dëgg dëgg dëgg di nga ne kon fii ak Bargny dinaa fay dinaa fayeeku gaay yi huit cent francs wala sept cent cinquante te kooku kenn mënu ko dékku mais kon l'État doit subventionner les différents types de transport mais est-ce que di nga leen di subventionner compensation de contrainte de service public bi nga xam ne état daf ko war a def verser Dakar Dem Dikk mais état bi du ko def état bi du ko def ba nga xam ne kon moom mu la daloon Sotrac da koy daal di dal maanaam day fab di liggéey di leble te kenn du ko fay parce que carte élèves yi état ba war a fay une partie élève bi fay une partie Dakar Dem Dikk transporter leen mais si Dakar Dem da leen di transporter élèves bi fay une perte li état war a euh, euh, euh, compenser du ko def contrainte de service public yi tii nga waroon a jaar ñu ne la doo doo jaar fii da ngay ji pour mën a yóbbu waa Wakaam ak waa Ngor ak waa Yoof door a dellu fee mhm. état bi du la ko fay kon finalement yow perte maa ngay daw mhm. mais nag dans le secteur du transport bii organisé bi structuré kenn séntuwu ci ay bénéfices yu extraordinaire mais séntu nañ ci quand même un mhm. ba nga xam ne Euh, ñiy yëngu ci secteur boobu dañ ci mën a gis seen bopp man si génn ñun bëgguñu benn yoon transporteurs yi dee bëgguñu benn yoon chauffeur si sonn mais ñu benn yoon aussi ñu bàyyi ba population bi di sonn hmm. li mu wax ànd naa si parce que avant 2000 dañ daan sectionné yoon bi boo jógee fii jëm Pikine wala nga jëm Guédiawaye da nga fay lu mat 4 ou 3 fois loolu moo doon danger bi parce que am na yenn euh, yenn secteur yoo xam ne il faut mu am contrôle doo ko bàyyi rek lu neex waaye def da ngay ñëw ñu ne la fii laay yem cité des eaux nga fay cent franc ñu ñëw wàcce leen ba ñëpp wàcc ñu ne la par droit amuloo amuloo pexe da ngay dugaat. dagat dagat bi dagat dagat bi bala nga koy bala nga yegg géej di nga fay cinq cent wala six cent franc. ko dindi dagat dagat bi. defal ndànk rek dagat dagat bi dëgg la Ablaye Wade am na lu mu si def lu bëri dama ne Dakar dem dikk bi ñu koy taxawal. boobu y avait rien waaye mm. looloo taxoon ñu ñu faloon ko. Mm. moo tax man du ma nangu. ñu ngi lu rëy lu ma fekkee man lu xeex nga ci loola. dëgg la Dakar di ko am. waaw ko xam xam na combattant la boo xam bii bëggul askanam muy transport torox loolu man koy def témoignage boobu. gis nga loolu góor ci Ablaye ba Ablaye damay la loolu. mais nag dafa des dafa des parce que c'est pas rek simplement nga créer structure andi teg te tegoo ko ci loxo yu wóor. parce que loo gis rek gestion bu baax daf ciy am solo ndax gestion moo yore entreprise gestion bu baax mooy qualité de service ba nga xam ne kenn ku nekk dina ci gis boppam loolu moo amul moo des loolu moo tax ñuy ñaan ci kàttanu suñ borom le 25 mars ba président Macky Sall ñu ne ko wéew mu jël réew mi mm-hmm. on va revenir sur lépp loo xam ne ni faay la woon danañ ko defar ba mu set wicc parce que ñun dañu gëm ne ku defar transport yokk nga développement réew mi parce que c'est un natu majeur que nous nous avons aujourd'hui le Sénégal est enclavé par rapport à l'ouest africain le Sénégal est ouvert à l'océan Atlantique lu jëm Amérique ak Europe mais à travers l'ouest africain le Sénégal e enclavé tey les routes prioritaires yooyu ma doon wax ci biir infrastructure yi pour revenir si góor li mu doon njëkk wax mais mooy autoroute Dakar Bamako autoroute Dakar Nouakchott Dakar Conakry autoroute yoo xam ne dafay développer réew mi biens yi di dem ak a ñëw nit ñi di dem di jëndi marchandise yi dem mu dox yéen def ngeen Europe. Mhm. gis ngeen na mu demee dangay ngay jógee euh, Moscou ba Paris wala nga jóge Rome ba ba ba ba ba Paris te loolu yëpp mën na nekk moo gën mhm. parce que loolu mooy priorité. ñu defar corniche boo xam ne ça nous revient à des milliards et des milliards de francs yoo xam ne amulul njariñ pour le moment parce que loo gis dafa am priorité kon nag ñun bu mu sañoon loolu ak les pistes de production te bëggatuñu dégg piste de production route de production la bëgg a dégg tey dugal ci àll bi légumes yi ña ngay pourrir bu waxtu fruits yi jotee fruits yaa ngay pourrir meew ma gars yi du ñu am fu ñu ko dugal dañ koy mujj tuur wala ñu koy jox mala ñu koy naanaat. parce que am ñu lu ko transport loolu dafay andiwaat euh, euh, relance ci wàllu euh, disponibilité route xam nga xam nga moom li mu wax ah, ah, wax. oui man jaay ne buy wax dama koy baax. Ah, xam-xam la. Mhm. man borom xam-xam buy mhm. wax ak man dama production la wax mais am na piste de production gis loolu mu wax fekk na ñu cee toog di ci xeex pour loola sotti te kii tax ñuy tax na am nga loo wax léegi nga ne bu Macky Sall jëlee réew mi dina def leen mais man de Macky Sall mi mu xam ngir yàlla yonente bi bu Abdoulaye Wade 2012 le 25 mars bu Abdoulaye Wade toogaatee man la may wax sama xarit mooy na ñëwaat dellu soit kër bàyyam liggéeyal ko parce que réew mi xam nañ ne baax na fi ci gouvernement bi ndax moom du sabooti waaye nag ku la jàngal am lu mu dese président moo ko jàngal te loo laabir laabir laabir loo jàngal nit ki jàngal li amul réserve mhm. réserve boobu nag moo ko tëb fi mu nekk nii réserve boobu président denc boo ko ko joxut du mën a téye réew mi comme il faut comme comme ni il faut nga ñëwaat këram trois ans yi jeex quatre ans yi jeex cinq ans yi jeex mu ba ma xam mu dem bu ko regee lam dencoon dina ko jox force bu téye réew mi réew mi ñëpp ànd ci ñëpp si nga xam mooy denc bi ma métti day joxu ko Macky Sall mais Macky Sall mu ko jàngal yëpp baax na mais dafa am lu waral expliqué si wut ñu ñaan président bu Macky dilsuité jox ko ko waay loolu beneen beneen débat la euh, beneen débat la euh, Gora euh, beneen préoccupation bu chauffeur yi seen bopp ñi nga xamante ni ñooy liggéey si wàllu transport Euh, seen digg ak euh, policiers yi contrôle bi euh, wàllu assurance ak li nga xamante ni mooy raquette yi am dañ koy waxte de rafetul lu am la dañ koy jàmbat yow lan moo ci sa gis-gis jamono ji ak lan lañ si war a andi comme matuwaay ndax du luy avancé ni chauffeur bi ni état bi ni ki nga xamante ni mooy takk der gis nga li ngay wax def lu am la mais dama ne en le premier décembre 2011 mhm. ci lañ naroon def benn grève pour dénoncer tracasserie yi mais kilifa yi bu gendarmerie ci commencé général bi di police di directeur général bu police di wàllu douane di directeur général bu douane di port gi Bara Sadji ñoom ñëpp dañoo bokk ak ñun toog ñu wax leen joxoñ baaraam ñu oo seen responsable bi nekk ci région yëpp muy police muy gendarmerie kenn ku nekk ñu ne lii moom amati bañ seetluwaatee muy wàllu douane police ak gendarmerie dama ne dem na ba léegi parce que jeexoon na dafa commencé waat na fi mu nekk nii. décembre janvier problème amut moom ku wax yàlla xam ne ne njàpp mënul ñàkk waaye wàññi ko bu baax février la même chose mais ci jamono bii nag bi ñu duggee ci campagne bi. Mhm. fa la affaire bi commencé waat. c'est-à-dire wax ko mu leer carrément maanaam euh, laaj xaalis. Mhm. fi la commencé waat. Mhm. mais dëgg-dëgg man taxaw naa ci télévision te dara gërëm gendarmerie gërëm police parce que nit ki euh, bu leen sonal. nga wax ak moom ba sonal googu mu arrêté ko war nga kaa gërëm ngir ëllëg bu la delluwaatee ci sonal nga mën kaa ngarab nga mën kaa nga wax ka leneen mais dama ne la loolu du problème mu Macky Sall bi mu nekk premier ministre bi mu nekk assemblée loolu du problème président kooku diggante nit ak nit la ñun suñ combat ba lay ñu ngi ci moo tax ñuy def ay grève ci tracasserie yi mu wàññeeku ndax du fi jógee Macky Sall loo Abdoulaye Wade ak keneen la ci am kenn mënu wax wax ba gendarme du jàpp chauffeur kenn mënu wax ba alkaati du jàpp chauffeur mais dañ leen di ñaan bi ci des dafa am loo xam ne la am dañ koy nangu ñun ñoo yore oto bu màgget ñun ñoo yore moo xam catégorie bu ma doon dafa màgget te code bi moom toujours màggetut bu bees tàq la wax code bi moom mag ki koy appliqué tey ci tali bi ah. mais oto bi aussi moom mag ki koy ki koy contrôlé ci tali bi kon tolérance foofu la ñu leen ko laajee ñu bàyyi code ba fële la code ba wax indi jikko yi mag maanaam oto bi dafa màgget yow xele bi oto bee la mag code bii moo la mag nga indil ñu tolérance tolérance nag mënu ànd ak yet moo tax ñu ñaan état ba léegi ñu ngi ñaanaat kilifa gendarmerie di ñaanal gendarme yoo xam ne mi ngi soog a dugg tey ji sax naka dimbale ñu parce que am na loo xam ne gendarme moomu quoi ñoom ñoo ko tey ji ñaari weer mi ngi soog ñu police ñaanu ñu directeur général de police policier boobu la ñaan naka dolli ñu tolérance douanier bi xam ne mi ngi soog a ñëw ci vendredi bi tey ji ci mercredi bi ba jeudi bi la ñëw douane tàllal ko loxo ñun na ko dimbali ñu ci li lay sañ-sañ bi nga am ci tali bi nga wàññil ñu ko ba indil ñu tolérance parce que loolu moo ñu ci mën a génne mais du problème état nit ak nit la mais tolérance nee nañ euh, fu mu bëri mooy masla bu bari euh, du doxal mbir non du tolérance boo dégg mën tolérance ah. yow oto boo xam ne dafa màgget njaay ne wax na ko léegi fii lu màgget ñuy ñaan moom nee na président bu ñëwee dina yeesal euh, dina yeesal dina yeesal oto yi kon xam ne kon oto yi fii rek dafa màgget ak njaay kon su président xam ne oto dafa dafa màggee. moo tax bu ñuy ñëw di. waaw loolu laa lay leeral. Mhm. kon nag moo tax ma ne la alkaati bi taxaw. Mhm. war a jàpp nag. ngir oto bi dafa màgget ndax oto bu bees sax boo contrôlé jàpp ko fa rawatina oto bu màgget moo waral ñun syndicat bi ñu ne tàllal nañ loxo police gendarmerie douane ba ci eaux et forêt naka dimbali leen ñu ñun ñun buñ màggetu tamit oto yi ñu yore dafa màgget loolu rek moo tax ne la doo mu Abdoulaye Wade mënu ci tous ministre de l'Intérieur mënu ci dara ñun ak ñoom ñoo mën a ñaan ñu may ñu mais dama ne la bàyyi woon nañ ko mais mi ngi yéeg yéeg boobu nag di sonal suñu mbokk yi ku amul loo loo dépensé doo mën a joxe versement te ku joxul versement ñu dàq la moo tax ñuy tàllal leen loxo ñu ñaan leen pour que lépp lu ñu mën a def ci tolérance ngir yàlla yonent bi ñu mën a am lu ñu yóbbu suñu kër mm. nañ ko def voilà euh, point boobu bëggoon naa très rapidement parce que dañuy ñëw. Euh, waaw point boobu bëggoon naa si wax tuuti. très rapidement tolérance boobu. parce que bëgguñu ñëwaat si pour terminer. si bëgg a wax rek. parce que tolérance zéro mais est que tolérance bi nga xam ne góor yaa ngi koy wax. est que yaakaar nga ne loolu bokkul ci. li nga xam ne leeral ne tolérance mooy jégal bi. yërmande yërmande boobu ak yërmande bu ëpp boobu. maslaa maslaa ñun ñëpp ci transport la ñu est que loolu indiwul tey jéye yu métti yi nga xam ne moom la ñu gis si tali bi les camions fous kay ku ne dégg na ko VDN bi fii yëngal ni fi am fële ca euh, wetu service d'hygiène bërki Dembo Ndiaye gis ngeen fa la fa xew mhm. ak yeneen ak yeneen mhm. loolu yëpp day daal di dikk duggaat ca mhm. manque de formation ba ca lay dugg mais man ñun dañu wax ne suñu ñëwee ba toog li ñuy njëkk a njëkk a njëkk a régler ci bokk na ci le retour des valeurs yar nit ki ci jom ak fula ak fayda ak ngor ba muy gendarme muy policier muy douanier ak ku mën a doon liggéey bi nga xam ne moo tax nga takk der gi taxaw di fayoo ko par weer ca liggéey booba ngay yeb yow chauffeur bi nga am fulla ak mat ak fayda ju xam ne code de la bi nga jàng ba yor ci sa teraanga da nga koy respecté bu kenn ku nekk respecté la nga xam ne moom moo ko liyee coow dootul am léegi naa la ko yëg voilà on va góor euh, góor on va bu fekkee Macky Sall ñëw toog def ko ñun sofër yi moom dee nañu xam nga tax ñuy dee yow waxu tolérance da nga ne kenn ku nekk la la war nañ ko def un point un tiré ñun dañu ne secteur bi ñoo dañ kaa xam tey wax xam nga ko bu baax mat la wuñu la nañu ku ñu yërëm rek lañ mën a wax mais bu fekkee ne boo fu toogee da nga ne alkaati lu la yoon may nekk ci yow sofër lu la yoon may nekk ci mais loolu mooy doxal waaw attends euh, attends nañ bàyyi ba ba egg fa war nañ bàyyi ba euh, renouveler parc bi yëpp nañ bàyyi dafa tali yëpp mën ngaa def am tali bu bees tàq mën ngaa oto bu bees tàq léegi nga dem ki tali bon léegi sa stomac sa sa euh, yëpp yàqu léegi alkaati seere la ba gendarme tele la seere la est-ce que yaa ko def tali ba la duñ bàyyi ba tali pare pare nga so a indi seen tolérance zéro boobu mhm. mais ñun tal tollaguñ ci dinaa la xamal ne tolérance zéro euh, tolérance zéro bépp président koo xam ne envisage nga indi yàlla boo falu dama ne ci li jëm sax ci oto yu bees yooyu fas nañu ñun oto ya nekk Europe suñu mbokk immigré yi di ci di di di ko pour mu ñëw. Mmh. que ñu yombalal leen ko ñu ñëw. voilà euh, loolu aussi on va euh, que vous suivez votre émission 17-18 euh, sur la TFM nous allons c'est vrai flirter avec les derniers pour la question du jour qui